tàcc ko bu baax baax moom itam bàyyi ko micro euh, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fekk rawatina kilifa kër gi di wax na rek xëy na bu dul woon li président Ousmane Sonko nekk ci situation bi mu nekk nga xam ne daanaka même situation la ko Cheikh baara moom mooy ñëw taxaw fii tey wax ndax euh, wax dëgg yàlla ni mu soppee ak ni mu fonkee jëmm jooju di Cheikh Bara Cheikh baara yi nag dañu fees dell dell dell ci kaso bi régime yi fi jàll yàgg nañu dégg ñiy jàpp léeg-léeg ay benn nit di tëj waaye régime Macky Sall rek lañ gisee mu singali di jàpp ay doomi daara ay médecin ay journaliste maanaam koor yi nga xam ne kenn xalaatul woon laal leen te fii ci réew mi daanaka yi bëri yi nga xamante ne nii daf fi taxaw am fi doole lool ci wàllum koom ci wàllum média ci lu mu mën di doon ci ñoo xam ne dañoo jóge ci dara di góorgóorlu ba taxawal empire ay doomi daara lañ boo doon xool quatre-vingt-quinze pour cent ay doomi daara lañ ba ci kër gi ñu nekk bu ñu ñëwee nag singali leen ci ñoo xam ne kenn si ñoom deful dara lu dul ñàkk a ak ni système bi di doxe ndax ginnaaw Cheikh Baara ñu ngi wax ay kilifaam mais ani Cheikh Omar Bamba Diop dox dem seeti Ousmane Sonko lañ ko jàppe mu ngi àndaloon jàpp ma turam beneen sëtu Mbàkke Mbàkke boo xam ne dafa jóge woon vacances turki ànd ak fii ci mim réew kenn ku yaakaar ni homme politique yi rek la wala xëy na waa Pastef rek la mooy yow comprendre li nekk di dox mu sommes définitivement dans une dictature loolu lay bañ a dégg mais loolu moo am ci réew mi ndax dictature weesuwul léegi boo ne kii mbaxana bi dafa weng ñu jàpp boo postee loo mën di poste donte sàmm nga ba sàmm sa kàddu li nga posté sax ñoom bu ñu la bëggee jàpp daal dañoo mel ni ñu yor lii do rek kii faaw ñu jàpp ko ndax mooy jouer rôle bii kii faaw ñu jàpp ko te suñu waree def seen ñaawteef dañuy xool journalistes yi ñuy jàpp xool yan porteur de voix wala yan chroniqueur la ñuy jàpp xool yan pièce maîtresse ci euh, parti bi la ñuy jàpp ainsi de suite c'est-à-dire que bu ñu demee ba cim réew plus de 1000 personnes daanaka boo jëlee ñoom ñëpp même motif yi la ñu am nga xam ne tappale dugg na appel à l'insurrection atteinte à la sûreté de l'État acte xawma de manœuvre et cetera wala association de malfaiteurs ñëpp même cest à léegi par loolu la ñu dugal defeere nañ 22 démb defeere nañ 12 tey ainsi de suite di dugg ci biir kër yi di loxati nit ñi ngeen yaakaar na nekkuñu ci dictature waa pendant ce temps ana ki taxaw ne dañu war a rey 90 pour cent des sénégalais ana ki taxaw ne dañu war a rey Ousmane Sonko. ana ki taxaw ne ñoom Dj ji dañ leen a rey ana ñi nga xam ne dañoo jël xaalis di ko soppi ana ñi doon defar faux passeport ana faux médecin yi mais lu ne gis nañ ko ci réew mi lu ton ni innama loo xam ne boo àndeek nguuru Macky Sall lu la neex def ko te dara du la ci fekk mais boo nekkee ci beneen boor bi quand di beneen boor bi nag mooy su may wax nguuru Macky Sall jéggi na régime Macky Sall APR ak benn Benno Bokk Yaakaar système bi la. te système bi nag lu nekk nga laxasu ca biir lu ne corps bu ngeen xalaat mais boo ca nekkul bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen seen xel mën a ràññee ba xam ne problème bi am nekkatul problème mu nit mais problème mu système la ngay taxaw di gën a leeral xelu Sénégalais yi loolu da ngay nekk cible. CEDEAO dañu wër ñu ni dañuy intervenir parce que dafa am ay coup d'état militaire et cetera mais coup d'état militaire du xeer a juddu coup d'état constitutionnel mooy indi coup d'état militaire war a ñu dénk am réew nga war a jël doole jën teg sa loxo yépp ngir soppee ko nekkinu askan wi nga décider ne da ngay jël doole jooju ngir tëcc ci askan wi ngir di mën a jël alalu askan wi di ko jébbal say patron yu nekk bitim réew ndax ku déglu média français ni ñu waxee fu mel ni CNews nga xam ne ñëpp xam na ne Bolloré ko moom l'un des plus grands chroniqueurs yi fa nekk li mu wax dafa leer il n'est pas question France di bàyyi Niger parce que sinon ça ça devient catastrophique ndax politique énergétique gu France mais ci Niger la uranium Niger la ko basé noonu la melee noonu la mel ci Sénégal noonu la mel ci Côte d'Ivoire moo tax xool leen ñan ñoo nekk di défendre ngir. Euh, ñu def euh, comment dirais-je ñu wàcce armée bi xeex ak Niger gis nga Afrique dañu yeewu te ñoom war nañu xam ne amul benn doom sénégalais boo xam ne d'accordul ci li ñuy def ñoom mu ragal leen lu toll ni tarfatal ay ni bu ñu yaakaaree ne mën nañu xupp nit ñi ba duñu wax d'accord bu leen neexee ne kenn dootu fi marche bu leen neexee ne kenn dootu fi conférence de presse bu leen neexee ne kenn dootu fi ñoo mais loolu yépp askan wi la neex amul benn nguur ak lu mu toll boo xam ne mën na jàmmaarloog askanam am ci ndam amul mais nag tant que askan waa ngi koy nangu jàpp ne kii la yeggseegul ci man ay nuñ dem rek li wér wóor foofu lay daaneele mooy ñii nga xam ne jàpp nañ leen ña ngay résister ci seen manière ndax du Cheikh Baara kese moo nekk ci grève de faim ba am ay torof torof Hannibal Djim mi ngi ci grève de fin bi ko yaayam seetee mënul yegg ci moom ndax ci situation bi mu nekk de loin la koy la koy la koy séen Hannibal Djim deful dara ñëw Sénégal ngir takk soxna war fi toog ab diir delluwaat ñu jàpp ko di wax ay wax waxi Kopar Express ay financé Pastef ñoom bu ñu xamoon que ñu ñëw eh, di créer emploi sénégalais di ci gis seen bopp nga jàpp leen tëj ngir benn parti boo yaakaar ne jàpp nga ne li muy utiliser euh, plateforme boobu di def ay fundraising yooyu baaxul ci yow mooy ñoom léegi yeggatu waxootuma leen léegi créetuñu emploi mais léegi dañuy nasaxal sax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di créer ay emploi loolu nag encore une fois lépp mi ngi dépendre ci askan wi man foofu rek laa koy waxee ñun ku ci nekk dina bay waaram ca na mu ko mëne ku ci nekk di nga mën a jël sa risque ba fa mu ba fa nga yem waaye li am solo mooy askan wi mooy yor kàddu gu mujj gi moom lay neex dictature bi continuer moom lay neex dictature bi dakk jërë ngeen jëf voilà ñu tàccuwaat ko bu baax a ñu fàttali ne mooy moo jiite secrétariat national à communication de Pastef sànq sax yaa ngi koy wax mais am na koo xam ne may nañ ko liberté provisoire def ko sous contrôle judiciaire koo xam ne nekkatul sax ci réewum Sénégal mu di ab tubaab di Juan Branco donc pourquoi Cheikh Bara Ndiaye mënuñu ko may moom itam liberté provisoire comme moom mi ngi ci biir réew mi biñ koy jëli ji këram lañ ko jàppee donc kon ñoom xam nañu fan la Cheikh Bara dëkk certainement parce que këram lañ ko jàppe pourquoi moom mënuñu ko may liberté provisoire ñu may ko ab tubaab boo xam ne génn réew mi du signé si waat chaque euh, premier vendredi bu mois bu nga xam ne jot na mu di Juan Branco ñu daal di dalal kenn ci euh, jataay bi mu di njiital les forces démocratiques du Sénégal les Guelwaar di le maire de la capitale du rail docteur Babacar Diop encore une fois bu baax a baax